dal leen ak jàmm ci xibaar yi li ci gën a fës bokk na ci affaire Ousmane Sonko Mimi dal dina ci àddu Bassa Fall ak kii di Birame Souleye Diop ñoom dal dina ci ko jàpp ak yeneen ñaari dealer yi nga xamante ne bokk nañ ci deal bi nga xamante ne moo doxoon diggante ak Massouxa Mbeng ak kii di Fatou Kiné Ndiaye ci loolu ba léegi kii di Fatou Kiné Ndiaye dinañ ko jugé fii ak fanweeri fan ak benn ci weeru mars bi ñu nekk dina ci bokk benn jaaykatu brochette lii di doro drogue ci biir champ d'industrie dina ci bokk tamit benn commerçant bi nga xamante ne benn camion moo jaar ci kawam ba moo faatu mbokk yi ponk yaa ngoong su ngeen taaxaloo rek ñu faram fàcce ko asalaamaaleykum comme niñ ko waxee ci bopp rek lañ koy tàmbaleeg ak mbirum Ousmane Sonko ancien ministre de la justice di Aminata Touré daal di na ci àddu ci tension yi nga xamante ne moom lañ doon nemmeeku fii ci Sénégal depuis bu ñu jàppee kii di Ousmane Sonko bu ñu sukkandikoo ci kii di Mimi Touré lu mu wax rek moo di ne il faut jàmm mën a ñëwaat ci mim réew ngir ngir justice mën a def ab liggéeyam ndax ministre magistrat yi avocat yi ñoom dañoo soxla tranquillité ngir mën a def seen liggéey ni mu waree fàttaliwaat rek ne te lii pour moo am rek il faut ñu créer ay conditions yi nga xamante ne mooy daal di protéger askan wi ak seen moomeel Abbas Fall ak Birame Souleye Diop ñoom daal dinañ libre coordonnateur bu PASTEF bu Dakar di Abbas Fall ak euh, administrateur bu parti boobe di biram Souleye Diop ñoom daal dinañ libre bu ñu sukkandikoo ci euh, information bi nga xamante ne kii di Guy Marius daal dina ko fësal bi nga xamante ne moo doon amal benn jàkkaarloo ak ni ki tey jii ci ab fàttali rek ni ñoom dañ leen a arrêté woon ginnaaw bu ñu interpellé kii di njiitum PASTEF di Ousmane Sonko ñu wax affaire Fatou Kiné Ndiaye Ndiaye di maire Beñe bi nga xamante ne jàpp nañ ko ak ñaari dealer yi nga xamante ne ñoo sekkoon seen liggéey bu ñu sukkandikoo ci journal Libération bi nga xamante ne moo fësal lu nu mel di wax rek ne affaire GP Fatou Kiné Ndiaye mi nga xamante ne dañ ko arrêté depuis le 24 février fale ca Maroc ñeel wàllum euh, drogue Massoukhi Mbeng bi nga xamante ne moo moo ko joxoon drogue boobee ngir mu indi ko fii ci Sénégal jaarale ko ci benn boîte bi nga xamante ne ay dal la nekkoon jox ko étudiante bi di Fatou Kiné Ndiaye ba ñu jàpp foofee ca Maroc bu ñu xootalee enquête bi gis nañ ne ñaari nit yi nga xamante ni ñoo war na réceptionné drogue bi bu mu ñëwee fii ci Sénégal ñoom tamit jàpp nañ leen ci diggante Saly ak Wokam ci mbir moomee gis nañ ci benn étudiante ñu koy dàkkantele maire beñe moom moo chargé woon ngir jaay drogue bi fii ci Sénégal moom milieu buñ koy jàpp fekk nañ ci moom lu tollook cent grammes ci wàllum drogue fali ca Wokam ñu des ak yéen ba léegi ci mbir lee ndax date bi nga xamante ne moom la ñu war a jugé kii di faatu ki ne ñaay daal dinañ ko ajandi étudiante bi nag te am ñaar fukki at ñaar finalement le 31 mars lañ ko war a jugé moom ñu def ab pàttali rek ne moom mi leen ñu ngi koy tee fële ca am Massoukh Mbeng bi nga xamante ne fale ca Agandir lañ ko jàppee biñ koy déglu maanaam ci audition dafa xamle enquêteurs yi rek ne moo jox drogue bi kii defaatu Kiné Ndiaye ngir mu transporter ko fii ci Sénégal ñu wax ci laveur bi nga xamante ne wàllum courant moo ko faat drame bi mu ngi amee niki démb bu fukki waxtu ak ñaar jotee fale ca wetu marché bu avril victime gi doon wuyoo ci El Hadji Ndiaye nekkoon benn employé fole ca station bu lavage d'engins ay di raxas ay auto ay moto ak ay matériel électronique defa jot benn décharge si noonu la faatoo te moom mu ngi doon def liggéeyam tranquillement bu ñu sukkandikoo ci information yi nga xamante ne jot nañ ko jógee diwaan boobee ñuy wax six kilos waa sapeur pompier yi nag ak waa police bi ñu leen wooyee la ñu dépêché ñëw foofee corps bi jóbbu ko ca bi benn yi l'enquête ñu wax ci accident bi nga xamante ni moo faat commerçant bi di wuyoo Talla Fall ta moom Talla Fall dafa duggoon ci benn otom Mercedes ci noonee la benn camion benn daanu ci kawam ci noonee la faatu bu ñu sukkandikoo ci information yi nga xamante ne waa l'observateur daal dinañ ko jot nee nañ benn oto blindé moo dal ci kawam ci noonee la faatu ci saa si moom marié woon na am ñaari doom waa sapeur pompier nag bi mu ñëwee la ñu jël koor gi ko foofee ca morgue ba ñu wax ci wàllum drogue bi nga xamante ne moom la ñu saisir fale ca Ziguinchor fa bi nag mel ni benn film hollywoodien bi nga xamante ne fale ca la passé ci guddi samedi jàpp dimanche vers trois heures du ci information yi nga xamante ne waa Senebeb daal dinañ ko fesal trafiquant bi nga xamante ne ci benn moto Jakarta la yéegoon ak douze kilos de chanvre indien maanaam sinébar moom mi la daal dina vigilance check point yu gendarmerie bu mu jógee foofee ca Bignona dealer bi daal di tromper police yi ne pont mino bu jigéen euh, daal di accélérer moto bi ci noonee la police daal di ko topp di ba moto bi daal di renversé maanaam daanu du daw ko fa police bi ñu yegsee la ñu gis lu toll ko fukk ak ñaari kilo ci wàllum drogue mu wax ci benn jaaykatu brochette bi nga xamante ne moo doon nob lii di drogue ci cent dix mi mu doon jaay moom mi la benn guinéen la di wuyoo ci turu Alpha Diallo ko doon déglu niki démb fale ca tribunal de grande instance bu Dakar li ñu koy toppee bokk na ci wàllum de détention am na lu toll ñaar fukki at ak juróom waa police niñ ko jàppe rek mooy biñ ko dénoncé ti noone la waa police daal di wàcc ci place am ñu gis lu toll ak fukk ak juróom ñetti cornet de chèvre indien bi nga xamante ne da koo nëbboon ci benn sac noir bi nga xamante ne da koo làqoon ci suufu taabal bi ngir di ko jaay ay client ngam bu mu jàkkaarloog ak juge bi Alpha jalo nag daal dina weddi tuuma yi nga xamante ne moom lañ koy topp ndax nee na loolu yëpp dara amu ci mbokk yi li moo fi rusande woon ci xibaar kon